société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo daanaka yéene yépp ci Mame Boye Diao la ñu xëy tey réew mi quotidien na la ko waral mooy démb dafa yëgle ne candidat lay doon ci élection présidentielle bi nu dëkmal maanaam samp na ndëndam waaye yéene bi nee na naka la wax lu ni mel président Macky Sall mayu ko sax fu mu yekkee nàkkam ndax dàq la ko def ca bopp caisse des dépôts et consignation ab décret la génnee fasaasa le regard gis ni Mame Boye daa jàdd rek Macky Sall am amam boykat daa romb rëdd wanu ko rëddaloon Sud Quotidien ni gise teg ca ni moo waral Macky Sall dàq na ko ca boppu kees de dépôts et consignation source a ni kay loxol mam boy la seppi ci ndab li ba mu set l'exclusif ne déet demeewut noonu mam booy kay moo lekk ba suur dal di këpp cin li yéene kaay bi dolli ca ne fas wi nga duufal ba mu duuf mu wëlbatiku rey la lii moo dal président Macky Sall ak mam booy jaawo mam booy jaawo mooma nag ay risques yu rëy rëy la jël ndax vox populi nee na candidature am bii dees ko xoolaat Macky ki farandoom itam wacc nañu ko rax ca dolli nag ñu tàmbali ko bundu xataal yéene bi nañu dàq nañu ko ca bopp caisse des dépôts et consignation Ahmed Sakho moo ko fa wuutu te ka topp ca moom ca mairie bu Kolda Amadou Ba dalal na ko démb Mam Boy du loola doo nga dal ci kawam ndax yéenekaay bi nee na ba mu demee ca stade Abdoulaye Wade bëggoon a seetaan démb match bi doon dox diggante Sénégal ak Algérie la lañu ko def doon te yoroon na sax ay billets dàq gënu ko daq ci bopp caisse de dépôts et consignation moo waral bés bi nan ko Mam Boy Thiaw le mandat dolli ko këli gi ne ko allez oust petit Diawo yéenekaay bi nee na Macky Sall fawul foluwul la mu gëm te bëgg ko ci 2024 kenn du ko ko yàqal cereem jii di Amadou Ba yéenekaay bi nee na kenn du ko xajamal waaye cere ji dana xajam la tribune miy laaj gannaaw Aly Ngouille Ndiaye ak Mame Boye ana ku nar a fippu ma nga ñuy xamal ne ay apériste authentique maanaam ñu yàgg ci APR lool fas nañu yéene taxaw jàkkaarloo candidat wu bii di Amadou Ba le témoin ne moo mbaadu ci fippu général la Macky Sall gaayam yi jëm laas mel ni ku naan waaw ndax Abdoulaye Daouda Diallo it dana fippu tey démissionné la nar a def tey jii ci bopp conseil économique social environnemental buñ sukkandikoo ci laas yéene kaay bi nee na kon Abdoulaye Daouda Diallo it a bu leen ngeen demee du ngeen gañe de Amadou Ba moom premier tour lay gañe ndax bilanguk Macky lay campagne te Macky moo maay doon directeur de campagne am lii la Abou Abel Thiam wax ci le quotidien journalu Madiambal Diagne a démissionner tekki ndombal tànkam nu mu gën a gaawee ca primature maanaam dakka la doon premier ministre Karim Wade moom tekkam gi mu nekkee bu dakkut du baax ci moom yéene kaay direct news nee na ñibbisi bi parti démocratique sénégalais woote Karim a ca war a ndax moom fa mu ne ca bu weesoo ay message ci Twitter ak Facebook la def mel nip néew deful déclaration deful interview deful sax vidéo ñu gis ko xam ni mooy wax loola nag am ci jamono ji nga xam ni parti démocratique sénégalais mooy woote opération ñibbisi maanaam libéraux ya demoon lan bëgg ñu del si lii xeeñ enquête ca pastef mooy la daloon parti démocratique sénégalais ci élection yi nu weesu maanaam ñàkk candidat ba nuppi amoo beneen plan yéene kaay bi ne ni ki PDS ak taxawu pastef itam war naa teg waxtaanu plan B ñu am beneen candidat bu dul Ousmane Sonko laa sana gaañi saaxoo ne nii plan A B ba ci C war nañu waruñu koo xalaat Dame Mbodj ma ngi ko naan dëgg la waaye campagne te Ousmane Sonko bokk ci loola dana doy waar li doy waar ba nu war caa indi coppite maître Ngagne Demba Touré mi nga koy wax ci biir yor yor bi bokk na ci presse bi démissionné ci liy xew ci réew mi na mu ca war a taxawee defu ko administration boo xam ne fu nu ko joxoñ mu jaar ay takk deru système bi ci réew moo xam ni ka ko jiite mooy buur di bu mi la ca gën a yéeme nag maître Ngagne Demba Touré nee na mooy koom-koom koom-koom boo xam maître Ngagne Demba Touré coordonnateur national jeunesse patriotique du Sénégal nee na lii dafa war a dakk wax ci wàllu koom-koom sax ak réew mi quotidien yéenekaay bi jàngat diggante MEDES ak pouvoir publique yi na mu war a demee la cay taxawaay mouvement des entreprises du Sénégal itam secrétaire général MEDES Modou Mboup ma nga cay dikk ci biir réew mi quotidien dikk itam ci assise économique yi ñuy wàcc ëllëg alxamis lanu cay seen toog njariñ la ngir Sénégal Modou Mboup ma nga koy yaatal ci biir réew mi quotidien lii quotidien nañu Sénégal inauguré na usine bu njëkk ci wàllu production meuble maanaam ay meuble dañu koy defar ci jam ñaajo le soleil ne ko la ca gën a neex nag mooy usine bi Macky Sall inauguré démb ca jam ñaajo mooy bi gën a mag ci UEMOA ca Xosanto amal nañu autopsie xool ña faatu ca manifestation ya fa amoon ana lu leen faat yéenekaay bi nee na ci teewaay substitut procureur lañu ko amalee la docteur ya gis ci néewu Bakary Sissoko mooy bal nu ko dóor ca bopp lañu gis banu nu càmbare néewub Ibrahima Uwe Drago mooy moom hémorragie interne la am maanaam dafa nàccee ca biir balitam lañu ko dóor ci dënn bi ci mbirab Ousmane Sonko Sonko ak Bassirou Diomaye Faye libération mag ñu naan doyen des juges sàkku nañu taqale ñaari dossiers yi càkku teef la wu bàyyeekoo ci parquet bi te fa mu nar a yóbbu bu nu ma yowul mooy ñu taqalaat Bassirou Diomaye Faye Diop Taïf ak Vito ñañu taqal sukkandiku ci article 80 bu code pénal tey lañu leen di àtte les échos na seeni avocat yi leen di layal nag dañoo bëgg ñu dàq àtte bi ngir ñu gën a waajal seeni dossier ak ba la xewoon Kër Mbay Fall l'observateur dikk na ci yeggee ñu ay seede yi daw yaram rendi waaye jigéen ñi seen coono yemut ci rek farwu doy waar ndax l'observateur itam def na jàngat ci ñuy wan na lor ba noppi amee wopp épilepsie lu metti la yéenekaay bi nee na tiitaange ak bakkan wu ne ci xortu gerte moom la soxna yooyoy dund ba keroog ñuy mucc sunu gaynde gayndey di démb mucc ñu ci Algérie fañ doon jaar ak ñun rek lañu jaar maanaam duma nu stade ne benn bal ci dara lanu nu duma te mooy defet bu njëkk bu sunu yi am ci réew mi 2012 ak léegi réew mi quotidien ne ko moo it bu njëkk bu gayndey am